tey nag dafa mel ni leer na Omar Sarr lu Macky Sall wax loolu la wax lu mu waxul waxu ko. exactement mais dernier ci lañ la fal président conseil d' administration société de l'assurance est ce que mën nga ñëwaat ci nan lañ la falee est ce que du loolu moo tax tamit nga am discours bii nga am. man pal taxuma ma ànd ak Macky Sall parce que man déjà euh, man député laa woon def nekk naa ko ñaari yoon euh, nekk ci liste député yi. kañ nga commencé concrètement ànd ak Macky Sall ngëm-ngëm bii nga am ci moom ba wax ne lu mu wax moom nga wax lu mu waxul waxoo ko. yàgg na boobu Ablaye Wade nekkagul président on était des amis ñu bokk nekk PDS yàlla dogal ñu nekk ay xarit. taux bu raw bi nga amoon ak Idrissa Seck. non non maanaam euh, Idrissa Seck moom politique moo tax mu dem ba bañ jaxasoo mais Macky Sall laa gënoon a miin yaa ngi dégg Idrissa Seck jóg ma ànd ak moom bàyyi fa Macky gutti ba ñu màkkoon màttoon màtt ko mu dem créer parti doon président ñu nekk ci liste Benno Bokk Yaakaar ñun ak parti réew mi ak AFP et bi nga xamee ne am na jafe-jafe ci biir réew mi Macky Sall woo ma ne ma kaay dama bëgg nga ñëw jàppale ñu moom moo jël téléphone am woo ma ne ma dama bëgg nga ñëw jàppale ñu ma ne ko duma la tontu parce que dafa am ñu ma àndal ma woote fii ci restaurant bi fii tous les responsables yi nekkoon ci refondation ñu ne ma yow tu es dans la député à l'Assemblée sur la liste Benno Bokk Yaakaar bokk ci groupe bi donc ça c'est naturel donc je suis resté là-bas mais xam nga suma diggante ak moom ak lim ma wan ak cëri bi ma jox tax na ñu jaxasoo jaxasoo ba man yéenewuma suma bopp lenn lu dul am xarit bu bu doon def candidat présidentiel gañewaat man loolu rek laa yéene sama bopp. c'est clair comme ni ñu Sall c'est na sama xarit la nekk na candidat gañe na. man loolu doy na ma cër fii ñuy wax donc list bi ma nekk ci bu 2017 bi moom ci boppam jël téléphone am ne ma place bi doo ma ko may. mais président booba bi ñuy waaj waaj a déposé des na deux heures de temps. mu ne ma dama bëgg nga may ma sa place bi ma ne ko bu ma amoon cent soixante cinq postes si nga ñaane ma ko nii ma jox la ko parce que man j'ai eu deux mandats quand même yu eu deux mandats de député un mandat de président de conseil régional ma ne ko joxal keneen mu ne ma dinaa la jox leneen donc ma toog onze mois est-ce que kenn musul xam mais teewul maa ngi def suma pour toog onze mois mu soog ma nommé wax nga ko léegi 9 mai 9 mai la toog def décret jox ma benn. pour caser la gannaaw bi nga. fonctionnaire maanaam man man fonctionnaire laa de hiérarchie A fonctionnaire hiérarchie A donc man bon ñu defal ma décret ak defaluñ ma décret wax dëgg yàlla du tee yàlla dina ma suturaal dinaa am lu ma lu ma lu ma suturloo moom ci liggéey bi may liggéey jàpp rek na ne war na ma <coughs> boole ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk. Euh, liggéeyu réew mi mu boole ma ci mais bu ko defuloon nit du changer dara ci li ma ko yéene.